gu bari gi ci moom jamono ji la moo koy expliquer il a même parlé de l'affaire Mame Mbaye Niang avec un rapport qui existerait euh, finalement bu nekk ci taabalam maanaam Ousmane Sonko yow koy déglu yow war nga seet li ma lay wax jante xam ko bu baax dafa am lu ko lu mu téye ba tey. Ousmane Sonko téyul dara téyul dara il y a des gens qui disent bu sañoon mu nekk président de mais démb dafa benn affaire boo xam ne jeexal na wax ci man. mooy lan mu ne sama kilifa moo ma ne kan mooy kilifaam. sur waajuram bu jigéen. déedéet président Bassirou Diomaye Faye. non non non loolu day day. kii euh, day non dara jënd ma nii rek. déedéet xam nañ kan mooy kilifa. non kilifa kilifa ci parti Pastef moom mooy kilifa bi. d' accord mais ci état président Diomaye mooy kilifa waaw officiellement et il l' a ouvertement kenn seexalul ko mais pourquoi on voit que Sonko. pourquoi on n'entend que Sonko il vit le rapport. xam nga Ousmane Sonko. li muy entre li ñuy wax ak li am mën na am différence. déedéet amul différence. il l'a dit hier. oui mais entre ce ambassadeur bu mu recevoir qui est na bu mu recevoir président moo ko sant mu recevoir ko. il ne rien que Diomaye n'a pas. jàdd non c'est ça xam nga ne Ousmane Sonko du euh, ko defal. non xam nga xam nga parce que ni mu demee la en fait. xam nga man mhm. def le même cours mën nañ préparer le même cours nest pas. Mhm. ñu nekk devant la même classe. yow nga def 30 minutes man nga def 30 minutes. Mhm. mais ku nekk da indi sa touche personnelle. Ousmane Sonko ñëpp xam nañu personnalité président Diomaye bu mu koy choisir comme premier ministre xam na luy personnalité Ousmane Sonko. il n'avait pas le choix. pourquoi il n'avait pas le choix. ah parce il lui doit tout. déedéet. il lui doit tout est-ce que Ousmane Sonko était prêt à devenir premier ministre. waxtaanee nañ ko. déedéet. il l'a de il il l'a jamais demandé. d'ailleurs Ousmane Sonko n'avait pas accepté d'être premier ministre. ah oui ah déedéet. loolu de xaw ma wax wax xaw ma ko. non non il voulait pas être premier ministre pas être parce que. il a choisi Diomaye il a battu campagne pour que Diomaye nekk président de la République il a voulu laisser Diomaye conduire. mais c'est Diomaye a fait appel à lui. mais il y a eu des concertations au-delà même de, du président Diomaye pour lui faire comprendre en réalité que il peut pas laisser la barque en eau trouble fallait que mu nekk la mm-hmm. et il le fait avec sa manière et avec sa personnalité. <laughs> cette personnalité nag mooy problème bi. mais cette personnalité lépp lu mu war a def dafay sukkandiku ci lii nga xam ne moom la il toujours. en discuter avec le président de la République ba mu am ci ndogal mu def ko. Mhm. léegi nag les gens am na ñoo xam ne bu ñu sañoon jomaay isolé Ousmane ko bañ a nekk fii parce que dañ jàpp ne xëy na bu si on mais le président Bassirou Diomaye en isolement war nañ ko mën a manipuler mais c'est mal connaître l'homme